defee dañuy jàll ci kàddu yi rek dalal waa Côte d'Ivoire sëriñ Touba Lo sëñ Baara Fall sëñ Mor Faasa sëñ Seex Fay xam naa sëñ Touba kan mooy jël kàddu yaay jël kàddu bisimilah kon bu defee nga wax ci turu Côte d'Ivoire ñu ngi nuyu tamit jëwriñ sëriñ Alxaaji Makumba Caam di nuyu tamit euh, jëwriñ ajame sëñ Baara Fall ne nga xam ne moo fi teew ak ña fa nekk ñëpp bisimilah wa rahmatullah wa barakaatu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne si ñoo fi teew yëpp euh, ñoo ngi leen di nuyu euh, di ci jiital sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Al Basir yàlla nag fi yàlla saxal dàkk ba mu àgg àggale ay naalam ak yéenam ki bëgg-bëggam yëpp te ànd ko mboolem jullit yi yëpp bu loolu jàllee ñuy siyaar bu baax kii nga xam ne si mooy suñ kilifa waaye itam di jëwriñu liggéey bi muy sëriñ Cheikh Afia Bousso al imam di ko ñaan yàlla suñu borom àggaleel ko ay mébétam te may ko kàttan gu ànd ku wér te defal ko mboolem jullit yi waaye itam di siyaat bu baax euh, sang si nga xam ne si ni eh, ñoom la teg liggéey bi ci seen loxo ñu ànd ci ak ñoom Euh, buñ ci tuddee Serigne Abdoul Ahad Bousso maam Thierno mi nekk ci suñu wet euh, Serigne Abdoul Ahad Bousso Moutalib Serigne Abdoul Ahad Bousso maam Asta euh, Serigne Abdoul Ahad Bousso Mokhtar ak Serigne bu Bousso waaye tam di siyaar bu baax ki nga xam ne mooy suñ jëruñ ci diaspora bi muy Serigne Assane Diop dañ mën a yóbbaale mboolem ñi nga xam ne si ne ñi ngi ci biir liggéey bi yëpp. waaye itam di leen wax ne ñi ngi ñëw ànd ak suñuy jëwriñ yoo xam ne si ne ñoom lañ bokkal nekk Côte d'Ivoire Euh, kii nga xam ne si moo ko jiitee euh, di Serigne Bara Fall euh, bi nga xam ne moo nekk ci Touba Adjemi waaye itam mu ànd ak Serigne Mor Faasa moom itam di kenn ci jëwriñ ñi nga xam ne si ñu ngi ci Touba Côte d'Ivoire ak Serigne Cheikh Thiam. kii nga xam mooy moom du Mouhamadou Moustapha Fall amoon na yéene ñëw lool waaye dafa am lu ko tënk boobu mënul ñëw Serigne Sadeex Kanam itam amoon na yéene ñëw waaye moom itam ka Salika waaye ñi ngi buñ teewee rek mel na ne que teewaale nañ leen kon ñi ngi wax ci turu Côte gi yëpp. Euh, di ñëw rek di jottali ay kàddu yu soññee yoo xam ne si ne mi ngi tukkee ci daayiru muxaddamatul xidma waaye tam ñu ko jàllale ci sunu kàddu ñuy soññ mbooleem jëwriñu Serigne Touba yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Côte d'Ivoire gi yëpp ndax ñoom ñooy baasub liggéey bi kon ñu ngi soññ jëwriñ yooyu ñu jàppalante ci suñu biir ñun ñëpp kenn ku nekk jàpp ne liggéey bi mooy sab liggéey kenn ku nekk tam xam ne lu ci waay def lu nekk sa bopp nga ko defal euh, te mel na ni que li nga xam ne si mooy baas bi itam euh, suñ nijaay Serigne Pallou Diop wax na ko sànq euh, liggéey bi doonul loo xam ne si lu yomb la ñi nga xam ne si ñoo ciy jëf seenu ñàq Serigne Touba moo leen di tànnal boppam kon nag na kenn ku nekk na kenn ku nekk fexe ba ñi nga xam ne si ne ñi Serigne Touba di tànn ñu bokk ci liggéey bi ñooñu ca ngay bokk looloo nag nit ki moo koy fas yéene def ko ci xelam waaye itam def ko ci xolam fas ku yéene bu ko defee suñu borom eh, jàppale ko ci loolu. ñi ngi sant nag bu baax mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne si ñi ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp ak góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn waaye nag wala fi dañu wax ne tàgg bu nekk am na jàppal diw. daañu sant bu baax euh, kii nga xam ne si ne mooy sunu tante soxna euh, euh, Ndumbe Ndumbe sekk te yàlla dogal mu ni ñibbi si nekk cees ak kii nga xam ne si mooy Adja Ami Ñing moom itam ak soxna Xuj Seck ñoom itam ñu doon ay jëwriñ yoo xam ne si yuy taxaw ci liggéey bi la ak kii nga xam ne si mooy sëriñ am dëru Thiam ak sëriñ Baba Thiam ñoom ñëpp itam ñu jàpp ci liggéey bu bu baax dafa fekk ne nag mënuñu tudd ñëpp waaye ñoom ñooñu dañu bokk ci ay jëwriñ yoo xam ne si ni saa ñu xasee ba yëkkati sun kàddu ñoom ñi njëkk a joxe seen i participation ci la ñu bokk loolu mooy wane na ñoom loolu daf leen soxal bu baax waaye nag tekkiwul ne ñee ci des loolu soxalu leen comme ñu ko waxee rek loolu moom moo ci nekk waaye daal ñi ngi tàllal suñu loxo di ko jëmale ci jëwriñi Serigne Touba yi nga xam ne seen ñoo nekk ci Côte d'Ivoire yëpp ñu jàppale ñu ci liggéey bi te xam ne kenn ku ci nekk foo waa jàpp rek sa bopp nga jàppal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di bañ a guddal xanaa li nga xam ne moom lañ ci jottil rek muy Euh, kii nga xam ne mooy sunu nijaay Serigne Dame Soxna Guèye euh, mu nekk ci Touba Amérique moom itam bokk ci membre yi jaayante añu jumaay Touba moom euh, buñ ko waxee rek yaakaar ñu bari dégg nañ aw turam rawatina ñi nga xam ne si ni ngi ci daayira jaayante añu jumaay Touba mu amoon yéene teewe si li nga xam ne mooy jataay bi waaye ndox mi tax na ba mënul ñëw kon itam buñ fi teewee dañ koy teewaaleel di ñaan yàlla ñu yàgg ko fekkee ay déwéni déwén te kenn bañu wutee bi barakati alhaaji Mouhamadou Alfadal Mbacké Mbacke wasalaamualeykum wa rahmatullah. Ah, jërëjëf sëñ Touba kàddu yi am na solo lool te matale eh, kon sëñ eh, sëñ Baara Fall eh, xam naa boo jël kàddu yi ñu ñu jottali la ak cant it goo xam ne day dem ci jëwrin yi Côte d'Ivoire muy El Hadj Macoumba Thiam ak jëwrin yi fa nekk yëpp. yóbbante it ab soññee ci bokki taalibe yi ngir ñu gën ñoo jàppale ci liggéey bi bi nga xamee ne dem nañu fa ci di di di tourner film sur les traces du taxawaay yu rëy yoo xam ne wax dëgg yàlla taxawu ngeen ko fa ak sëñ Aliou Thiam ñoom ci lañ bëggoon a def lépp ñu def ko ni ko sëriñ bëggee jàpp naa ne film bi euh, ñu bëri seetaan nañ ko ci waajtaayu màggal gi ci RTS muy liggéey bu rëy rëy bu am am solo kon ñu ngi sant waa Côte d'Ivoire gépp rek di leen tàllal loxo foofu ni ñu ko waxee woon ndax jàpp naa ne buñ dee wax. murit gi ci jasporaa ci murit yaakaar naa Côte d'Ivoire la tàmbule ndax ba fa daayira Sëriñ Tuubaa di am ci bëriwut fu mu am ci àddina bi kon euh, jàpp nañ ne seen àddiyee war naa ñëw ci tabaxu jumaa ji wala boog jàpp naa ko loolu laa jàpp kon buñ dee wooteel jumaa ji jàpp naa Côte d'Ivoire war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen soññ di nuyu sëriñ ma fëri Ndiaye mi nga xam ne day réew yu bëri ci yi nga xam ne jot naa dugg ci Afrique wax yàlla ci taxawaayam la kon ñu ngi koy nuyu moom it di ko sant bu baax di ko gërëm